bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam di ndokkeel it bokki jullit yépp ci xew-xew bi nga xam ne moom la ñu génn doon ci fàttaliku guddik rañaan ga waaye waa Sénégal li ci ëpp ñëwoon fii doon fi fàttaliku waale gan ak àdduna ak alxaaji Muhammadul Faadal wuy si nañu nañ leen wooye woon yàlla na leen yàlla fay lamboo na nag ay yëf yu bari yu baax yal na nu yàlla jotale ci seen yool ya làmboo na dox ak bokk jokk ak bokk bari na ñooñ ci xew yu ni mel ci lañuy amee paso dem seeti seen bokk yu ñu gëj a gisanteel muy benn ñaareel ba it joxe nañ ci ay ñam ak i naan yu dagan te bu ëllëgee suñu boroom nee na ci alquranul karim suuratul balad am na ñooñ la leen di yóbbu aljanna mooy joxe aw ñam fakku raqaba aw itaamun fi yawmin di masqaba li ci am nag lu jullit yi doon wër muy ab yool yool nag ba ca gën a kawe gën caa foor mooy aljanna yàlla nañu ko yàlla defal aljanna moomu nag jar na daw ba ay dal ràbb ndax lu jafe dugg la la fa nekk ci ay xéewal am na yu ci yu bari yu ci alquran lim yoo xam ne kenn ku nekk xeemeem naa dem aljanna yàlla na ci yàlla boole ñu say dem te mu yeex waaye aljanna jooju bokk yi ay caaxaan taxu caa dem ay caaxaan du ca tax a dem di xalaata dem aljanna bëgg ko tax fu ñu woote ngir yàlla nga dem aw yoon la ca waaye mësistu dégg wala ñu teg bët kuñ ne sax far day fo ba am lim am bu dee amam adduna dañ naan daal liggéey ba am lim am te dawut caaxaan dawut caaxaan dawut yàq loolu nag li am alali addunay jafe-jafe am aljanna ko gën a jafe fuuf ndax daana tax aw mag ñemeetuñoo lekk ba suur ndax bu ñu lekkee ba suur yàlla mën na leen a booleeg ku ñuy wax gëmment ku gëmmentu daal di nelaw te ku nelaw lu bari raw ko wala mu suur bu nelawutit aw yaramam tayal ci jóg wuti lu baax wala def ko am na ci ñooñ daanañ ko xalaat ba far sax gedd àdduna ak li ci biiram lépp dem dëkk ci àll bi ak rabi àll yi di lekk ca la ñuy lekk muy garab yi di naan ca la ñuy naan muy déeg yi ak sayaat ndax lan daw seytaane daw seytaane seytaane day fekk ku toog ci xottu gerteem ak xottu gerte ni mu tuutee fas fa yéenee jaamu yàlla waaye seytaane amatul soxla ci xottu gerte wu ndaw woowu ak espace bi mu occupé ci suuf si ak li des lépp waaye dafa naan ñukk suuf sépp ak espace am ba fas yéene ba xottu gerte woowu li muy tuuti tuuti kenn du fa jaamu yàlla wala mu dafa am ixlaas ba mu fa war a jële moo tax suñu boroom nañu woon seytaane seenub noonu la su ngeen ko ko jàppee ak su ngeen ko ko jàppewut ñi ko ko jàppee tey jëflanteeg ñoom ci anam ak ñi ko def ay caaxaan defe ne dund gi na fii ak benn benn yi ci suñu borom geesu defal leen lu bari lu seeni moroom mënta am dañoo foog ne rek loolu mooy wéy loolu nag pas-pas bu yàqu la am na ci nit ñi ñu gëm ne nu waay dunde fii rek bu dee ku tedd la fii bu faatoo it loolu day wéy te war naa mën a xam ne loolu du wéy ndax lu mu fi am am lu mu bari le bari le bu si bu faatoo kees gañ koy dugal leneen du ca toppaat duñ ko sulaaleeg oto ya duñ ko sulaaleeg ak kër ya duñ ko sulaaleeg compte yam amal ci yeneen loxo lay dem ñu def ci lu leen ci soob moom nag moo yàlla ñu nekk ci ndum foofee te suratu fatir la aaya ba bu nekk inna sheytaan lakum aduw am na bu ko jiitu mu ne na ngeen xam ne yàlla lu mu def lu mu wax dana ko def lu mu wax dana ko def bu leen topp mbumbaayam àdduna ba dugg ci biir daairab seytaane te seytaane ku mu war sawara la koy yóbbu bis bi mu taxawal di yàpp terminus ba muy gaare ne wàcc leen fii laa jëm si woon mooy sawara te suratu ibrahim suñ ca demee danañ ca fekk suñu borom di wax ne bis bu yàlla dajalee ñépp dana am ñu taxawal seytaane ne ko fay ma la nga ñu diggoon mu ne leen déet yàlla da leen a digaloon dig leen ma digal leen te digguma leen woon dara man xam naa ne yàlla mooy yàlla kon bu ma kenn jéem a yedd yedd leen seen bopp man dem naa wa qaala seytaanu lamma qudiya al amr inna allaha waadakum waada al xaqi wa waadtukum ngeen bàyyi fa deux suñu deux lépp suñu borom topp ma kon fa fa axlastukum fastajabtum lii fala taluumuni wa luumu anfusakum maa ana bi musrixikum wa maa antum bi musriqi kon seytaane fu nekk lay fekk nit am na fa suñ bu mag bi di bind naan bu leen wóolu mukk te xem seytaane ndax dana topp nit ki ba ci sukkuraat lam ko fay toppe mooy weddil yàlla yàlla mi la doon wax nga di ko dund juróom-ñett fukki at ay caaxaan dong la sax ci noppam dox digganteem ak nit ñi ndax li muy wax nit ñi dutuñ ko li li nit ñi wax dutu ko dégg moom lekk dutu saf ci moom naan duutu saf ci moom te lépp bëgg bëgg naa lekk bëgg naan seytaane di ko won as ndox su sedd naa ko naan ci rek sa mbiri jag te bis bu ne caa tàmm rek yàqu de moo tax mu ne bu kenn naagu seytaane li feeg mi ngi dund ba ba muy faatu te day topp nit sax bu faatoo ndax dañ koy denc ba noppi ñu ne ah kii jërul ñaanam te ñaan bu ko kenn yittewoo wutoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko soxla mas naa wax moom sallallahu alayhi wa sallam ne xool aw gaa yi ba xoolaat leneen wala góor lépp rafet na de waaye nag mbaa yaakaaru leen ne lii bu ëllëgee ci ngeen dem aljanna ndax amul kenn ci nit ñi day koo xam ne jëfam mën na ko yóbbu aljanna ñu ne ko ba ci yow yaa rasulallah mu ne ba ci man mii man mii ndimbalu suñu borom dong laa fa yaakaar kooku nag kenn du dem ba mas koo dab te foofu la nekkoon yàlla jàkkaarloo nag moom bis ne ko toppatuma la dara te duutuma topp dara maa taqaddama min danbika wa ma taaxar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima yow mënatoo def leneen lu la yóbbu feneen jub nga ba noppi sa jubati waaye teewutoon Muhammad al Busayri wax na ci téeram bu ñuy wax burdatul madiix ne daana taxaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di naafila guddi ba tànkam yi neew yi ndax taxawaay yu yàgg ba noppi mu boole ko xiif bu metti te moo ne booba de mi ngi yoroon baytuma lil muslimin lu way di jox yàlla foofu nga koy indi magasin yi nag géej gi jaaral ak yëf waaye dafa gëmoon ne moomu ko woon taxaw guddi ba tànk yi newi soxnaam suñuy wax say soxna Aïcha radiallahu anha ne ko waaw xanaa li la yàlla wax da nga ko gëmut inna fataxna laka fataxan mubinan li yaxfira laka allahu ma taqadam min danbika wa ma taaxar mu ne ko ah kay dama koy sant yàlla lii may def dama koy sant yàlla jaarale ko jaarale ko ci ay ndigalam ndax defaluma ko lu jar cër bi mu ma jox defaluma ko lu jarit efa faral ma lépp ne toppatuma la dara donte innahu laa yuxlifu lmiaad waaye dama ko cay sant waaw mase ñun nag ñun ñi nga xam ne du ñan ku ci tëdd ba nelaw fàtte nga li ne ci sa néeg bi sax li ne ci néeg bi xamul tool di say dox waxuma la néeg bi sax ëpp na waaye ku ci tëdd ci laal wet gëm tëddee moom ci boppam xamut daa jaaxaan sax wala dafa tëdd ak wetat nit tey ñu fekk ko mu tëdd mu ñu ne kii daa wet wala dafa jaaxaan waaye jeexal na wéy na xamut janax ji dox xamut mbóot muy dox xamut ngelaw luy ëpp ñun kon nuñ ñu war a def xanaa fuñ seen seytaane fuñ ko dégg waxuma la seen waaye fuñ ko dégg daaw ndax ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo naa ko wutoon bay fanaane taxaw guddeeg ba cëg ba cëg bi mu ne ci jaami yàlla yi guddi gi mu ne ci digganteem ak yàlla boroomam kon war nañoo soppi doxin yi te seetaat fu ñuy toog ak lu ñuy wax waxuma la nag li ñuy def caaxaan moom waxuma di ko def waaye di ko déglu sax yàlla daf caa tëkkuwaate da ngay dégg ku génne kaset bu bees ne ñàkk na ca lu bari ay weer la ci def kaset ba lu muy doon kundung kundung képp te boo demee fa ñuy rang fa ñu koy jaayee dañuy rang di ko jënd lu cher ku ne di xëccoo maa ko jëkk a am waaye suñuy boroom nee na wa min annaasi loolu mi ngi sootu luqmaan wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi li yudilla an sabilillahi bi gayri ilmin wa yattaxiduha huzua ulaika lahum adabun muhin te kundung kundung jooju ñuy rang di ko jënd lu seer léeg-léeg nit yor ab kaamilub alxuraan naan la juróom benn fukk laa koy wecc ko ñu ne ko baal ma jéggal ma ko waxuma laa kaset bu jàng alxuraan mu teg ci ne wa ida tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka an lam yasmaa ka anna fi udnayhi waqra fa bashirhu bi adabin alim kon dund gi mat naa peesewaat xam ne yàlla du umpalewu dara dara du ko rëcc mi ngi ñuy wax ci suratul jidaal ñii tudde ko al mujaadala alam ta alam tara anna allaha yaalamu ma fi samawati wa ma fi l ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لولو يتكوكاي باي خال أه داغا سيتلو بري بري da nga seet lu bari te xam ne lu ab jotaay xumb-xumb ak lu mu wéet wéet ak ruu mën na faa roote te yonent bi moo ne yuxaasabu al maru ala ma maata kenn ku nekk ba muy faatu la mu ko fekk mu doon def ca la ñuy jëkk xool ay mbiram ba xam lan la yàlla nanu yàlla dimbale buy ñëw fekk ñu foo xam ne suñu laajee mën a ñu bu ñu laajee ñu am tontu lu ñu fa doon wut si ak lu ñu fa doon def si la alxuraan di wax naan ci suratu nisa fu nit mën a nekk ak nu mu fa mën a nekkee dee mën na ko fa fekk aynama takunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada loolu ñu yor ay téléphone xam nañ ci dara bu ñu lay téléphoné ci portable yi xew léegi fu la neex mën nga faa nekk su la neex nga ne ko maa ngi sow wala maa ngi penku wala damaa ne ci am marché wala damaa ne ci jàkk waaye ki nga koy waxal mooy ump la rek waaye yàlla xam na fi nga nekk xam na la nga fa nekk xam na la nga fay def itam ak la nga ci jublu lépp ginnaaw téléphone yi xamuñu frontière day dugg ci day jéggi géej gi dugg ci réew dugg ci réew dem ci région fekk waaja ca néeg ba mu dëkk mbajj mam sàngu mu yee ko ginnaaw nit ay fexe ba tappale ci li yàlla defar ba noppi waxaale wuñ subhanahu wa taala kon nañu moytu suñu boroom ci ay ndigalam ak i tereem ndax kat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bari nañu ñuy woo ñuy wujji buñ demee jaamu fa yàlla waaye su ëllëgee dañ leen di xaaj ñetti xaaj ku nekk ñu fay la nee na am na ci xaaj boo xam ne yàlla mañ fa woo moo leen fa tax a wuy ji buñ demee fekkuñ fa kenn nit ginnaaw dañ leen wuy ñëw leen rek dañuy dem ñoom xaalis am ñoo xam ne dañuy laaj ba xam kan ak kan a fa nekk bu fekkee ña fa nekk jar nañu ko mu soog a dem kooku la mu fay wuti mooy ñu gis ko fa rek mu ne dañar ñu ne diw nga ne di ñëw may leen ko mu agsi kepp am ñoo xam ne danañ wuy ji wootab yàlla waaye lañ fay wuy jeetu dara lu dul dañ fay dem di dóor nit ñi rek bëgg ñu koy nettali naan moom de fu wootab yàlla am rek mu dem fa yàlla na yàlla musal ci ñaar yu mujj yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ne bu ëllëgee ñett ñooñ yàlla danaan nañ ma seetal almuxlisiin ñi nga xam ne ñoom dañ doon wuy ji xaalisan lillaa yàlla noonu si yàlla boole ñii moom nañ ma leen yóbbul aljanna kon day mel ne bu ñu fay dem du ñu wéet dañ leen di gunge mu am protocole bu am maanaa ba dugal leen ba dalal leen waaye nag protocole boo ko déggee mooy day am ñu jiitu di xàll am ñu ne ci ñaari wet yi am ñu ne ci gannaaw nga xam ne kenn du la laal waaye bu ñu xoolee ñaari yi ci des nag ñi doon ngistal kese ak di dóoraate kese yàlla danaan yóbbu leen yóbbu leen ko duna yóbbu leen ma ko ndax yàlla bëggul benn jaam dem sawara waaye yóbbu leen ko lay wax bu ko defee ñu jiital ko di ko pamte pamte ba mu dugg ñu tëj bunt safara yàlla ñu ci yàlla musal boo demee ci alquran da nga ca fekk siiqa allazina kafaru ila jahannama zumara ak siiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara am na ci gu am wa futtixat abwaabuha ak futtixat abwaabuha wa futtixat abwaabuha mooy ki ma jëkk a wax léegi protocole bee jiitu bala ñoo agsi ñi ne ci bunt bi xam ne diwe nga ñëw ñu ubbil ko wa futtixat abwaabuha bu ko defee ka leen di dalal ne leen salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin duutu leen ko génnati mukk ñoom nag yàlla nañu ci yàlla boole ñu ne alhamdulilahi la sadaqana waadahu waaye ña ca des moom bu ñu leen di dugal dañuy puus bunt bi rek ñu dugg ñu ne teel wa qaala lahum xasanatuha alam yatikum rasulun minkum ñu ne mosuñu koo dégg mosuñu koo xam wala gisoon nañ ko waaye dañ doon lii tala lii ki talaa ah xanaa gis ngeen leen yàlla doon digde ñu ne ah kay qaalu bala walakin xaqat kalimatu aladabi ala alkafirin al kufru tekkiwut kese kese ab yéefar rek waaye koo xam ne bu yàlla rëddee sax nga bëgg a far te dib julit mooy nii mu ko rëddee neexuma rek moo tax àjjana lañ jóge woon ba suñu borom di wax suñu maam aadama uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma dëkkal aljanna yow ak sa soxna ragadan lu leen fa neex lekk leen ragad mooy saatul ayis mooy koo xam ne loo soxla baaraam ngay tàllal mu sotti loolu ñuy dem ci hôtel yu mag yi neex nañ cee jox misaal ba ñu xam ne lu yàlla digee dëgg lay doon hôtel yu baax yi dëgg-dëgg ku ca dugg téléphone bay na ca néeg ba su yëkkatee képp jëlul composé numéro bu ñu yëkkati ñu ne ko loo soxla woon su munta lakk dara danañ fexe ba xam li muy wax ndax ci ay service am la ñuy liggéey la muy bëgg yàlla na doon lu dagan rek waaye lu mu bëgg su fekkee lu am ci kaw suuf des na ko yët loolu nag lu mat a bàyyi xel ragadan haythu shi'tuma waaye lenn képp moo ñu indi fii ci tàngoor wi ak fitna ji ñu nekk laa taqraba hadihi shajara waxul lekk waxul daggub car waaye jege képp bu ko def garab suñu ko defee kat fa takuna min adalimin fa adallahuma sheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fii seytaane fexe fexe ba tarxis loo leen tarxis loo leen ci wax ak ci jëf te moo ne ci waxin ba ñu lekkee aljana ñoom ñaar mbubb amutoon ab séer amutoon kenn daawul gis sa moroom waaye bàkkaaru bañ def moo tax yàlla dindi kiiraay la doxoon seen diggante ñuy xoolante kenn ku nekk wut lu mu taf ci kawam fadallahuma bi gururin falamma daaqa shajarata badat lahuma sawaatuhuma wa tafiqa yaxsifaani alayhima min waraq aljanna wa naadaahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytaana lakuma aduw mubin qaala rabbana dalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin qaala habitu génn leen seytaane day tarxisloo nit tarxis nag su dee fu yaatu dëgg nga xam ne nit ki amut fu mu jàpp daanu damm te mag mas naa wax xikma bu yéeme boo xam ne day tegtale ni seytaane fi muy yóbbu nit day jëkk bala ma dox digganteem ak yàlla day dox digganteem ak nit ñi bañ jàppe ko ab dof mag mi nee na suñu baat mag ma ko waxoon nee na nit ñi bu ñu lay ñagal ñag mooy miireel sa kër del def gaaw lu ñu miiree rek nga dindi ko ndax fañ jëm ak yow mooy bu ñu noppee doo am bunt boo jaar génn dañ naan la wàlliyu nga nga ne weesu naa ko xanaa xutba nga kon weesu naa ko xanaa xawsu nga weesu naa ko xanaa xawsul xawsul xutba la weesu naa ko xawsul xaws weesu naa ko xanaa ab yonente nga kon mu xool gaa yi gaa yi xool ko mu ne leen foofu ba may raam laa fa toll woon ñu ne ko xanaa kon malaayika nga mu ne malaayika ab yonente ko gën a féete kaw di nit gën koo féete kaw ñu ne ko xanaa kon kii ñi bañ a tudd nga xam ne kenn ñemewu ko tudd moom ngay bëgg a doon kon mu ne ñu ngi ma koy jëñ de ñu ne kii daa dof kuñ ne dof la moom génn nañ ko ci nit ñi teg na loolu jay gu ëpp moo koy war nee na it yanta ngi ni yoo xam ne dara mënu ca yàq ree mënu si ko yendoo jooy mënu si ko yendoo aw xel mënu si koo yendoo ku la romb bi daw xel wu metti fi mu jóge soriwut wala fi mu jëm soriwut waxuma nit ki dox ak tànkam sax waaye yendoo dawal oto sax te taxawu fenn kenn mënu ko waxantuma nag ba mu ko ñeenteele muy ab yan nee na nit ñi moom suñ la yanoo nga ne tong ca kaw te bañ la yëkkati sëmpu say tànk ne wàcce leen ma fee gaaw bala ngeen sonn nee na bu ñu leen tun bu ñu leen danga kum yanu léegi te ñu sonn boo ne wàcc leen wàcc leen ma bu ñu so bu ñu sonnee dañu lay sànni bu ñu la sànnee yetti daal mën na laa daal daanu nga ba noppi de benn damm topp ca am na fu mag di damm dee moo cay topp kon nañu yeesalaat pas-pas yi te xam ne wootey ak wuy ji lu ñu ko tuddee suñu borom lu ñu ko tuddee yàlla ne moo ko moom rikk nañ ca sàmmoonte ak àq suñu borom ci ndax ku woote ñu wuy si la kët ña la wuy si wàcc nañ ñoom yaa ca des war nga leen a wax wala nga jox leen war nga leen a wax loo xam ne fii ba déwén bu fekkee par at lañ koy woote wala fii ba ay bis bi dellusi bu fekkee par ay bis lañ koy woote wala fii ba weer wi dellusi bu fekkee par weer la war naa doon loo xam ne saa bu seen xel ne yar ci lu ñu war a def ñu ne ah kerokat nee nañ fa lii su dee lu ñu nekkoon bu ñu ca bëggee delluwaat xel ne yar ci lañ fa na waxtaane keroog lu ci am solo la yàlla nañu ko yàlla déggloo loolu lépp nag li ko tënk mooy yaari bayit Sëñ Tuubaa yi may andi rajaau jannatin bila taaati bi sunnati lmaaxi gururun yaati id bitibaaciha takunu saalima wa bi ixtilaafiha takunu zaalima nee na ku yaakaar bëgg di séentoo dem aljanna ëllëg te bëgg koo jaare ci wenn yoonu bokkut ak wi yàlla joxañ te yonent bi wane ko sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee dañ ko ko xalaatal ka ko ko xalaatal nax na ko bu fekkee moo ko xalaat ma ngay nax boppam te nax sa bopp moo raw faj daan ne jaar teg sa tànk fi ñu ko teglu loolu nag ci wax lay doon ak ci jëf sa digganteeg yàlla ak sa digganteeg jaame yàlla yi ak lu lu mbir tuuti tuuti ak lu mu sew sew nga ne ana fu ma ci teg sa tànk ar fan la ko fi yonent bi tegoon sallallahu alayhi wa sallam ak nan la ko suñu bi jàng jàngalee woon nee na ci teg sa tànk foofu rek ci ngay mucc ëllëg waaye ku bëgg a jaar weneen lu bokkut ak wow lu ko dal bu ëllëgee bu mu ko wax kenn moo ko teg boppam yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ak i bokk bokkam bokk yi aljanna li muy neex neex safaan ba mooy sawara melokaan yu neex yooyu suñu boroom wax ci alxuraan ne mooy melokaanu aljanna ab sa lu ko raw fuuf cib safaan moo nekk sawara yàlla nu yàlla musal ca lu ñu fa yóbbu nee na ñu dëkk sawara moom ndox mu tàng jër lañuy naan yoo xam ne bu doon ñun ñi day dagg suñu butit yi biir te kat bis bu set buñ demee ba yaram bi lakk ba war a jeex yàlla daf koy yeesal ku xam mise en jour ci portable xam na ne loolu lu yàlla man la suñ demee ba yaram bi ñor xomm ba mënatoo ko xàmmee suñu borom tëggaat ko innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun fa subhaana allazi bi yadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi turjaun nee na li tax mu di ko tëggalaa yàlla mu bees daa bëgg mu gën di yëg mettit wa te ku ci kër kër yi ba àgg ci bunt ba bëgg a génn ñu xëccat ko mu duggaat ci biir yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu yàlla fekkaloo déwén te déwén gàcceel ren kenn bañu ko wuute wala ñi yàlla dogal ba noppi ñu nar koo wuute it yàlla na leen yàlla xiir tegloo leen seen tànk fi mu bëgg ñu teg ko fa ba bu ëllëgee ñu bokk ca ñee jariñoo yoolu buy ji woon wooteeb suñu borom subhanahu wa taala yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin